di e, di leen ndokkeel di ndokkeel suñ bopp ci gàmm gi nga xam ne moom lañ dëgmal muy gudd yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam e, comme ni nga ko waxee Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu mi nga xam ne léppam yonantu bi la woon soo ko bëggoon a xam dëgg-dëgg lan mooy bëgg-bëggam lan mooy jubluwaayam ci waxtu wii ci ngay ñëw pour xam dëgg-dëgg kan mooy Cheikh Ibrahim moo tax bi mu demee ba nga xam ne jëmm jëmm ji fàddu na ba mbóotam gën a fës soo ñëwee Madina tey da gis ne lam daan def yëpp yàlla daf ko gën a fësal ci ay xeet yu fasantikoo di jugee fu nekk ci àddina bi te dara taxut ñuy ñëw fii lu dul di xeeñtu yonantu bi sallallahu alayhi wa comme ni mu ko waxee ne nit ñaa ngi dem di wër kaaba gi di aji màkka di dem ci xab yonent bi waaye xañtuwuñ kenn ku dul man ndax moom mooy mbooti yonent bi sallallahu ndax dafa jeex ci yàlla ba nga xam ne jeex ci yonent ba nga xam ne dafa dem ba amatut léppam rek daf koo amal ci am yonent bi sallallahu moo tax mu ne ci ay waxam sax mu ngi wax ne wasal abdu fanin laysa fihi baqiyatun wama wama huwa illa almustafa lilmunaqidi wama huwa illa ahmadun wa muhammadun wama huwa illa ma wara al aqaawili maanaam jaam la bu jeex ba nga xam ne ci yontu bi nga xam ne moom ci boppam nekkatu fa dafa fanaaw ba nga xam ne mbóot ma rek moo fi des muy naan muy mbóot yonantu bi sallallahu alayhi wa moo tax mu ne toxalkat yi nga xam ne dañuy wax wala ñuy bind mënuñoo xalaat walla ñu bind ba wax dëgg-dëgg gëdd lim doon ndax loolu xel dafa lott sax ci ci xam ko kooku nag su gàmmu jubluwaan ñëpp dangay gis ne comme ni ko suñ mag waxee Mouhamad Nazir Ibrahima Niass moo daan wax ne bala nga xam ne amuñ kenn ku yonant bi mooy mu ne gàmmu jot su gàmmu jotaan ñi am ñi am ak ñi amul yëpp koo dem ñee ngi bale seen kër ñee ngi peinture ñee ngi soppi ay salon ñee ngi soppi ay lal ñee ngi soppi ay rideau te loolu yëpp dara taxul ñu def ko lu dul bëgg yonent bi sallallahu alayhi ak topp ay ndigalam surtout topp ay ndigalam parce que foofu la mbir yi nekk te yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañu ne yàlla wax na caakam yonent ci yàlla wane na ci àqam ba mu wax ne qul in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni yuhbibkum allah su ngeen bëggee yàlla rek topp leen ma ku ma topp rek yàlla bëgg la comme nag ñun yàlla lañ bëgg bëgg yàlla bëgg ñi te moom mu nekk suñ bunt ci yàlla mën nañoo def lu dul lii rek ndax euh, lim ñi jox mooy bim ñu ooyee ba pare daf ñu jox indil alquran muy téere bi jugee ci yàlla nga xam na ci la ñuy roy pour mu orienter ñu ci suñu diine mm, hadis yi sunna ak kiyaas ak yooyu yëpp ñëw ñu nattale ba nga xam ne suñu diine li ñuy lënt yëpp daf ñuy leer ñuy topp loolu Cheikh Ibrahim nag doonoon ci koo xam ne dafa jéggi dayo parce que ni mu jàngalee alxuraan ak ni mu jàngalee yonantu bi ak ni mu jàngalee jukko dafa dem ba dafa wër àddina bi yëpp moo tax sooy seet mbiram foo dem rek ci àddina bi dangay gis ne danga fa fekk ay ñooñam te li nga leen di xàmmee rek mooy jàng alxuraan julli or aji màkka jaamu yàlla tudd yàlla góor ki gi ak jigéen ji ku xees kee ku ñuul ki africain bi ak américain bi européen bi asie asiatique bi ñoom ñëpp koo ci dem rek benn jukko lañ bokk ñoom ñëpp ba nga xam ne tey soo ñëwee ci Medina da nga gis ne danga fi gis ay différents nationalités mais kenn du xàmmee kenn ñoom ñëpp rek dañuy bokk benn ju jukko bokk benn jubluwaay bokk benn bëgg-bëgg te loolu yëpp jëlewuñ ko lu dul ci yar yi nga xam ne moom la ñu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass yar ci bëgg yàlla ak yonantam te soo bëggul yonant bi wékkuwoo ci ay ndigleem su boobaa doo mun a am dëgg-dëgg li ut ci yàlla moom sax wax na ko mu ne yaa ayuha naasu inna ibadata maa wallahi baatilun e yéen nit ñi na ngeen xam ne jaamulu dut yàlla ay nar kese la comme nag nañ bugguñ nar bugguñ naxante liñ bëgg mooy yàlla ak yonantu bi te rëddal nañ fi nga xam ne foofu lañuy jaar dëgg-dëgg li ñu war rek moo ñu jéem a wekku ci ndigal yàlla yi ak ci tereem yi jaamu yàlla yi sëriñ yëpp doom ñu du ay nit ñu baax ñoo xam ne dañuy orienté rek di ñu yóbbu ci yàlla ayib may doom ñu du ñoo xam ne lekkaat imaam dañuy orienté rek pour yóbbu ñu ci yàlla imaam Malik am na ñu ko topp ci lim leen yóbbu ci xam-xam dem na ba nga xam ne nekk na imaam ci jumaa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam imaamul Hanbal imaamul Shafi imaamul Hanafi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk indi nga ngir boo xam ne ku la ci topp te yàlla rek moo tax mu la ci topp su boobaa rek comme ni ko Baye waxee yaa ngi ci yoon wu leer waaye nag su boddiwante amee rek su boddiwante amee rek su boobaa da gis ne mooy indi dégg-dégg yi ngay gis wala xew-xew yi nga xam ne da koy gis te xam kenn xamul fan la jugee nga xam ne sooy seet cosaanam rek da ngay laajte ndax est lii mooy lislaam léeg-léeg nga gis jukko yoo xam ne da naan dëgg-dëgg nit a ngi oote jëmale ci yàlla waaye da naan kii ndax li muy oote mooy lislaam parce que dem nañ ba nga xam ne fàtte nañ ñu ci bëri fàtte nañ alxuraan digal yi mu leen digal ni ñu war a bennooyee ni ñu war a joxe seen bopp yàlla ni war a gëmee ndogal ni war a utee imaam imaan suñ passé imaan ni war a demee ba nga xam ne ñu ci ihsaan loolu yëpp da nga gis ne ñu bëri fàtte nañ ko ba nga xam ne fi mu seen bakkan rek moo leen ñor ba nga xam ne dañuy xoosal moroom julli sax ne kii du jullit kii yéefar la su ngeen bokkul ni ngeen di solo wala ni ngeen di waxee wala ni ngeen di gisee rek doo wax ne nit la sax waaye da ngay wax ni kii yéefar la te yooyu yëpp lislaam daf koy tere moo tax bi ñu amee sëriñ bi nga xam ne daf ñuy teete pour jukko yooyu yëpp génn ci suñ xol yi fi mu yaree fi mu njëkk a defaree mooy dafay dem ba fàtteloo la sa bopp parce que sa bopp mooy xijaab bi nga xam ne moo lay poussé ci yooyu yëpp ak sa bakkan moo tax dafay rey sa bakkan ba nga xam ne da nga dem ba sànni sa bopp mu soog laa oo nag ci yàlla su boobaa ci ngay mën a janoo ak yàlla janoo boo xam ne janooy dëgg la parce que mbir yi kat huwa ak ënta ak ana rek la huwa mooy lan mooy li nga xam ne da koy dégg te xamoo ko waaye soo demee ba janag moom rek da nga naan ko ënta léegi nag jege na la ba mun nga koo joxoñ soo ko joxoñee mu lay jege di jege ba ñëw laxasu la ba dugg ci sa biir ngay moom muy yow su boobaa rek soo neexee nga ne ana mooy ana googu taalibe yi di wax nga xam ne dañ koy wax rek ngir jox seen bopp yàlla ñu dañuy bokkaal yàlla fekk dañoo xamut dëgguwaay buñ taxaw waaye du dara du dul rek ay nit ñu ragal yàlla parce que diine l'islam lim lay indil mooy nit ñi dafa am ñoo xam ne seen bakkan yi dafa rëy ci ñoom bakkan rek lañ topp rëy léeg-léeg nga gis ñoo xam ne ne wan ne la man ci askan sàngam laa bokk def ko jaas yi di ko geeree seen moromi mbindéef léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy wax ne dama am xam-xam wala ñu jàngale ci wala ñu yar ci nit ñi dañ koy def jaas yi di ci caw seen moromi jullit yi léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy am fal am donkaasi gi jàpp ne man maa fi man parce que maa am doole nguuran ci man def ko jaasi di ko caw ni ñi te loolu yëpp yàlla diglewu ko yàlla lim la digal rek mooy taalaw ila kalimatu sawaun baynana wa baynakum mu ngi oo ci kàddu yàlla laa ilaha illallah amul benn buur ba yoo jaamu ku dul yàlla yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moom la yàlla yónni ci ñun mu indi ñu julli eh, tudd yàlla julli aj or dem màkk su fekkee mun nga ko ci biir lool nag jëflante yi nga xam daf la war sa diggante ak sa moromi doomu aadama bi waxuma la sa diggante ak doomu aadama waaye xataa xeer yi walla bant bi sax am na cër boo xam ne daf ko am ci yow pour nga mun a nekk nit waaye ñàkk nite mooy nga jël nit di ko xool comme rab walla nga jël jullit di ko xool comme noon te ñoom ñëpp benn rek lañ mooy ci suuf lañ jugee te ci suuf rek lañuy ñuy dellu kullukum min aadama wa aadama min turaabi gàmm nag su jotaan loolu lañuy ñuy di xamal di ñu jàngal jukko di ñu jàngal fàttali ñi yonent bi jukko yi mu amee woon di ñuy waxal siira ñi mu daan def nëbbu ci dara li yonent bi daan dundee ñim daan nekkee ak boppam ni daan nekkee ak saxaaba yi ni daan nekkee ak même les non musulmans ni mu daan nekkee même ak ay soxnaam ak njabootam yooyu yëpp daf la koy nettali pour nga mun a roy ci jukkoom moo tax gàmm dafa nekkoon occasion boo xam ne ñëpp dañ naan teew waxuma li muy wax sax waaye soo ko xoolaan rek da nga yëg ne dëgg-dëgg yonent bi rek moo fi nekk sallallahu alayhi te yonent bi nag jëmm woon joo xam ne dafa ànd ak leer goo xam ne leer gi du fi jógee mukk waaye leer la woon boo xam ne tamit comme ni ko yàlla waxee maa ngi bind mu ne ko dama laa bind ci sama leer bind doomu aadama yi ci sa leer soo xoolee foofu rek da xam ne lépp day mujj rek seey ba jëm yàlla ji rek moo fi des soo dëggalee sa bopp nag waxtu yi ngay am am xel am bànneex am naqar am neex am naqadi yooyu yëpp nga jël yooyu yëpp gën a jublu yàlla ba nga xam ne loo ciy def rek yàlla rek nga ci jiital su boobaa ci ngay mën a nekk nit koo xam ne loo wax rek yàlla moo ko wax loo def rek yàlla moo ko def ndaxte su boobaa yàlla dafay teg loxoom te yëddullaahi ma al ku yàlla teg loxoom rek mbooloo mu yàlla teg loxoom ci ñoom rek ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo am dëgg moo tax jàmm yàlla yi ñu ngi leen di ndokkeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa rawati taalibe tijaan yi rawati taalibe Cheikh Ibrahima Niass yi di leen wax na nii rek la dégg nañ nag ñoo xam ne euh, benn xale may wax ne ma dafa am koo xam ne dafa jël photo Cheikh Ibrahima def ci montage bu ñaaw boo xam ne mu ne mu ko yóbbu ci réseaux sociaux yi mare mu ne ma ah yow sëñ bi loolu lii am na luñ ci ree ma ne ko parce que dafa am ñoo xam ne dañoo yërëmtalu addina bi nim diine nim sellee ak nit ñu baax ñi ni ñu amee cër ci yàlla nit ñi di jugee fu nekk ci àddina di ñëw di xenc lu baax ci ñoom am koo xam ne yàlla daf ko dafa kaste xolom ba nga xam ne moom amul dara lu mu def lu dul naan mu ngi caricature Cheikh Ibrahim loolu ma ne ko damay sant yàlla parce que comme ci yonent bi lañ njëkkee sallallahu alayhi wa ñëw ci Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu anhu suñ ko defee bàyyi rek da nga naan waaja mooy waaja rek waaye ci lañ koy gën a bëgg waxtu wi ñu gisee ñu wax ci moom wax yu bon waxtu woowu lañ ko gën a bëgg waxtu wi gisee ñu ko caricature yu ñaaw waxtu boobu lañ ko gën a bëgg waxtu wi ñu déggee ñu wax te waxoon nañ avertiroon nañu ne waxoon na Seydi Ali ne ko Ibrahima Niass du dul ne biir naa rek wax wax nañ ma ko parce que xam nañ ne góor du biir waaye su ma doon jigéen sax danañ wax ne ëmb na pour wane ne mu ngi séentu wax yu ñaaw yi nga xam ne ñi nga xam ne seen kër ëllëg mooy safara wax yooyu dinañ ko wax pour loolu doon seen yoon jëm ci safara loolu nag yoonam nekku ci parce que yàlla mooy tànn mooy dogal te tànn na ay nit ngir aljanna dana ko feesal tànn na ay nit ngir safara dana ko feesal ku yàlla teg ci yoon boo xam ne yaa ngi am yaakaar bokk ci nit yi aljanna yi dëgg dëgg loolu sant yàlla la ngeen di ndokkeel di ndokkeel mboolem taalibe yi di leen wax ne Madina ngi nii di Cheikh Ibrahima Niass daan wax gàmm su jubaan mu ne bale leen dëkk bi ubbi leen seen kër yi lal leen seen lal yi beesal leen seen lépp ndax gan yàlla yi dañuy ñëw te gan yàlla yi suñu ñëwee ñi ngeen gisul sax ñoom ñoo gën a bëri nit ak jinneeg yëpp danañu ñëw te ut siwuñ fi dara lu ñëw rek pour topp yàlla ak yoon bi sallallahu alayhi wa sallam kon na ngeen xam ne ñi fi ñëw ñëpp ay ñu baax lañ kon nag gan yaa ngi ñëw gani Cheikh Cheikh Ibrahima lañ radiallahu anhu te gani Cheikh Ibrahima mooy gani Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu anhu mooy gani yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ñu mën rek ci teral leen nañ ko def waaye buñ fàtte ne bés yi yëpp bés la yoo xam ne dañoo war di jàng ay salaatul fatiha di julli ci yonent bi lu bëri di ko jox yonent bi sallallahu ngir suñu aajooy faju parce que ni ko bàyyi waxee rek mu ne julli yi nga xam dañ koy julli ci yonent bi dafa mel ni dañ koy jox fekk dañ koy ñaan miskin mu ne mu ñëw seet ku riis mu jël mburu di ko jox mun ne joxu joxu ko daf koo ñaan te am na suñ mbokk yoo xam ne dañ koy def ba léegi léeg nga gis suñu ay mbokk yoo xam ne daan ñëw indil la ganaar ñaari ganaar fanaan sa kër ñaari fan ñetti fan suñu dem nga jox leen bëy walla xar ak xaalis ak saaku ceeb su ñëwee xam nga kon liñ la joxoon dañ la koo jox muy éene bu baax waaye yow tam li ñu leen fay da nga leen a lu ëpp liñ ñu la joxoon moo tax addina bi yëpp échange rek la am na yoo xam ne jarul fi stress yu metti yi soxorante yi fiirante yi animosité yi yooyu yëpp l'islam digaleegu ko l'islam li mu la mooy soo xoolee borom maqaama yu kawe yi sax ku ci daan wax rek koo ci tudd wala muy présenter boppam comme ku mel ni Cheikh Ibrahim toujours day wax rek na jaam jaam bu xeebu bi jaamu yàlla bu xeebu bi ñooñu nga xam ne daraja yi am ci àddina naan jaam bu yow demagoo fen jàng benn téere wala ñaar wala nga dugg benn xalwa rek ñëw rek di gongat gongati ci kaw nit ñi foo ne da am lu pare te àddina bi li lépp li ëpp mu ngi ci sa kanam loolu mooy li nga xam ne ñu bëri suñ ko bàyyi woon rek dinañ àgg ci seen borom moo tax ñu ngi gërëm yàlla di gërëm yonent bi di gërëm sallallahu alayhi wa di gërëm Cheikh Tidiane radiallahu anhu ak Cheikh Ibrahim radiallahu anhuma di gërëm sang yu baax yi nga xam ne foo dem ci bés gàmmu gi ci Sénégal danga nga gis ne ji nañ fa lislaam jëmbat nañ ko fa jëmbat boo xam ne seeni taalube seeni soppe soo ñëwee ci bés boobu rek da xam ne tey bés yonantu bi la sallallahu alayhi danañ ko feeñal ci seen seen zahir ba pare dinañ ko feeñal ci seen baatin te loolu yëpp topp ndigal yi gaa yu baax ñooñu rek moo tax ñu am jukko yooyu kon yàlla nañu yàlla jëriñ ci moom yàlla nañu yàlla jëriñ ci moom yàlla nañu yàlla jëriñ ci moom ñu leen di gërëm di leen sant di ñaanal xalifa bi wax na sëriñ maax yi wax na ak moom sànq mu ngi ñaanal bëggoon naa ñëw waaye mu ngi koy wax ne ko bëgg naa ñëw waaye maa ngi seet su fekkee ne ñëwuma tamit su ngeen fi nekkee rek maa fi nekk su ma ñëwee tamit ba tey bàyyi rek moo fi nekk waaye alhamdulilah yëgatul benn métti ci yaramam mu ngi sant yàlla bu baax ñuy sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal ko di wax ne moom tam ñaanam yal nañu ko yàlla nangul ci zahir ak ci baatin Medina ngoog gan yaa góor ñaangoog jigéen ñaangoog xale yaangoog mag ñaangoog te ñëpp dara indiwu leen fi lu dul yàlla ak yonant bi ak topp ndigal ak wattu tere du ñàkk nag léeg-léeg dina am yu ci rax waaye ñooñu nañ def ndànk te xam ne ci lañ mën a baaxee waaye ci lañ mën a yàqoo ba faw yal nañu yàlla baaxal ñun ñëpp ñu di sant di nuyu suñ mbokk soxna yi nga xam ne dañoo jàng jàng nañ xam-xam ci diine malgré ay jigéen lañ waaye ci jigéen ñi nga xam ne dañuy jàngale lislaam ci madina Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu di jàngale njub ak tarbiya te loolu yëpp ñu ngi ko nampee ci Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu ba pare di ko nàmpale ay ci ay góor ak ay jigéen kon wax ji du jeex mukk lu dul ne rek dañ leen gën a encouragé ñaanal leen yàlla ñaanal ñoom maxtaar journaliste yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañ te dara wax taxul ñu ñëw fii rek lu du dëggal bés bi ci ngëm yàlla ci bëgg yàlla ci liggéeyal yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa ñu leen di gërëm di leen sant waaw di gërëm tamit ñun waa Camara suñu xarit euh, liggéey bi ma njëkk def ci Cheikh Ibrahima Niass ci Amérique moom moo ko njëkk a enregistré muy documentaire bi ma defoon ci baay ñu def ko anglais ak euh, olof moom moo ko enregistré temps yooyu ay film yeeg clip yeeg yooyu rek daan jël waaye biñ demee ba taaliba yëpp bëgg keroog nee naa leen kontaan naa ci moom maa ngi koy ñaanal di leen ñaan ngeen ñaanal ko yal na ko yàlla jox télévision fi mu am na télévision ba Sénégal yëpp xam nañ ko te boobu mu ngi nekkoon quatre-vingt-dix-neuf 98 99 waaye tey am na télécom ñëpp ñu xamee ci ne buntu yàlla yi ubbeeku na waaye ku tëj rek yàlla tëjal la ku ubbi rek yàlla ubbil la yërëm leen ñi leen féetee suuf ki leen féetee kaw yërëm leen ñi leen féetee suuf mooy ñi nga xam ay néew ju doole lañ ngeen ëpp leen doole waaye ki leen féetee kaw mooy yàlla mi nga xam ne moo amee lépp yal nañu yàlla gërëm yal nañu yàlla yërëm yal na yàlla fajal ñu mboolem suñu aajo yal na yàlla nanguñu suñ gàmm ba nga xam ne danañ lu ëpp liñ yaakaaroon yàlla may ko suñ réew may ko suñ continent may ko fépp fu lislaam nekk ci zahir ak ci baatin asalaamaaleykum wa rahmatullah صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاد